tey dañoo daje ñun ñi nga xam maam ñoo bokk ci parti alliance pour la république bu Macky Sall euh, tënku ci kuréel gi ñu wax zone onze muy fukki zone ak benn yi nga xam ne moom moom lañu euh, dëkk bi nga xam ne mooy Touba zone bi nga xam ne mooy sone onze kuréel gi nga xam ne maam ñoo ko lëkkale ñoom ñoo ànd tey jii euh, di wane seen naqar ci taxawaayu parti bi ndax ay weer yu néew ci ginnaaw yàlla dafa dogaloon président de la république Macky Sall dalaloon parti bi ñu waxtaan ak moom ci jafe-jafe yi nga xam ne parti bi baaxoon na ko am ci dëkk bi ba tax élection yi fi ñëw ñu di ko perte loolu la tënk ci lu bare bari jox ko moom it mu am lu mu ñu wax ci xëyu ndaw ñi am lu mu ñu wax ci responsable yi fi nekk am lu ñu wax ci jigéen ñi ci xeetu financement ak jàpp leen ci ñu liggéey ak ci ay yu mel noonu euh, loolu mu jox ñu dale nañu fii ak fukki fan na ngeen ci tënk dara indil ma ci biñ ñëwee ñu góorlu daje suñu biir waxtaan euh, def liggéey bi ñu waxoon yëpp jibal ko ministère conseil waaye gis nañu depuis boobu ba léegi amatuñ ci benn information euh, te ginnaaw bi loolu jàllee tamit li nga xam ne moom moom la ñu santoon ñun mooy bu tànnee ci liste député yi ne ñu mënu romb cinq wala sept gën ngaa bari ci liste nationale bi su boobaa li nga xam ne tànn mu mel noonu kuñ tànn na ngeen mobilisé ànd ak moom ngeen jàppale ko biñ ñëwee loolu mu waxoon ñun def def nañ ko bi mu tànnee xooluñu ki mu tànn démb la wala tey la dañoo ànd ak moom ci li mu bëgg ndax parti noonu lay doxee. waaye gis ne ci góor góorgóorlu googu ñuy def ak di ko jàppale ak di ànd ak moom ci li mu bëgg ñoo gis ne am na ñeneen ñoo xam ne maam lépp lu président Macky Sall wax ñoom dañuy taxaw fële contre loolu ñooñu dañuy jàkkaloo ak ñun ci terrain bi ñuy jëflante jëflante bu metti mais dañuy gis ne ci ci part euh, ndaw ja day mel ne président de la ñoo ñooñu lay jox nopp bi ci mujj mooy barki démb gis nañ kuréel gi nga xam ne maam ñoom la recevoir ca pare ba ah, faj seeni aajo taxaw ci seen i jafe-jafe mu ne ñooñu mooy ñi nga xam ne maam ñoo contrôle décision yi mu jëloon tuddi seen bopp ay résistance euh, di def di ko attaqué ci Touba nu mu gën a ñaawee te ñooñu bu leen seetloo lépp lu président Macky Sall mas a ñàkk ci Touba bokk nañ ci ñi ko ñi ko ñi ko koy koy xañ léegi ñun ñi nga xam ne maam ñooy militant yi xam ne maam dañoo yaru ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo topp ndigalam ñun ñooy ñi nga xam ne maam ñoo jege base bi di ci liggéey depuis 2008 ba léegi président Macky Sall mi daf mel ne ñun ñooñu considéré wuñu bàyyi xel te fàttaliku ci ñun dara dara dara léegi nag suñu gisee ne golo yooyu ak kañe yi moo ko gënal maam nit ñu baax ñi ñun day jot nag ñu taxaw xool suñu bopp ñu ñan moo tax bi ñu gisee loolu ñu maase am naqar ci loolu di ko fàttali li nga ko waxoon te te jéemu ci dara di ko wax tamit ne ko mu ñuy jënde su fekkee ne ñooñu moo ko gënal te ñooñu la jàpp ne ñoo ko mën a gañeel ah dañoo préféré bàyyi ko ba xam ñooñu mën nañ ko jox ndam ci Touba wala déet moo tax li ñuy def tey ji ab alerte rek rek la ñu ngi koy déglu nag ci lim ñu waxoon ci ndaw ñi wax ñu ko ci jigéen ñi bu saafara wut fii ak 17 jours ay élection dana am santa suñu nag mais dàquñu sax ba wote ba sanction bu taxul ci yitte yi nga xam ne waxoon nañ ko ko parce que ñun ay APR lañ pire et dire parti bi la ñu bëgg moom la ñu topp du ñu ko mës a bàyyi lépp lu ñu naqari ci biir parti bi la ñu xeex ñii ñu àndal ci kër ñang yàgg nañ ci parti bi trop mais parti bi bénéfice ñu dara ñun waa kër ñang du ndomba du du financement du ndaw ñi mu jël ci mu jël ci ñoom am xëy wala laneen wala laneen ak bëgg ñu ci bàyyi ñu ci tere suñu bopp bopp ba léegi yàgg na nag tey jii nag suñu xol moo fees ñu jug ne dañuy wax wax bi bu njëkk bii nag wax bu njëkk la rek pour alerte mais su fekkee ne ay solution amul danañ jug xeex nañu baaxoo xeexe ndax ñun population Kër Niang xanaa ñu yooyu zone bi te zone bu rëy la nag ndax sone bi dafa lëkkale Kër Niang yoon Daaru Rahman sal bokk ba Daaru Rahman ak Ngiraaneen quatre liiri wat moo fi nekk te liiri wat bu nekk ëpp na vingt 26 bureau kon population bu bëri ñoo fi waawate kon ñu bàyyi xel ne bis bu ñu jógee xeex ndam moom mën nañ ko séntu fu ne waaye duñ ko séntu kër ña kon ñu bàyyi xel ci li ñuy wax dañuy alerte nag suñu saafara wut suñu naqar yii danañ jugaate bu ñu jugaatee kenn mën ñëw tee fii quatre jours rek la ñeen may mhm. bu am benn bu ñu réagirul benn réagir danañ jug ànd ak jigéen ñi ànd ak ndaw ñi dugg ci biir askan wi wax leen suñu message danoo yàgg ci parti bi di jàppale président Macky Sall 2008 ba léegi waaye son onze moom dafa mel ni Kër Ñang dañ leen a fàtte dañ leen a fàtte ci parti bi dañu leen a négligé ndax euh, yaakaar naa ne lenn loo xam ne bénéficié woon nañ ko ci parti APR fii ci Touba Kër Ñang amul négligé nañ leen trop amuñu kenn koo xam ne mas nañoo ay élection ñëw ñu bokk ci nomination yi mësta am fii ci Touba Kër Niang te terewul rek ñuy gëm président Macky Sall di ko jàppale ndax olof Ndiaye dane ku gën a bëgg mooy gën a ñuutlu te ñun dañoo bëgg président Macky Sall gëm ko di ko jàppale waaye yaakaar naa ne loolu président yëgu ko ndax fii ci Touba Kër Niang amul lenn lenn loo xam ne nii cërale nañ ñu ko amul it loo xam ne jàppale nañ ko responsable yi fi nekk fi ñu fi dajee ñëpp nag ay responsable lañu wowuñu fi benn militant ndax fii ci Kër Niang li mu ëmb zone bi li mu ëmb dafa bari ndax euh, responsable yi nga xam ne ñoo fi nekk mooy Ngiraaneen sol bopp Daaru Rahman Kër Baay Laat Touba Mosquée loolu yëpp ci ci ci ngi bokk ci zone 11 kon responsable yooyu ñoo boole wantoo ñëw fii di jooy seen naqar di wax li leen metti te ñu bëgg loolu leen naqari mu saafaraw ak nu mu gën a gaawee ndax euh, bu ñu demee ba nga xam ne ñu fi nekkoon démb ak barki démb di xeex président Macky Sall ñoom lañ jël tey teg ko ci suñu kanam dinañu metti kon jóg wax dafa jot ndax kenn mësuñoo dégg ci ay wax kenn mësuñoo dégg ñu ne ñu wax benn baat boo xam ne ku ko dégg dana ne waa son onze waa waa wala waa Kër Ñang ñun yar ak dal ak yiw moom lañ xam te moom lañ àndee ak suñu président di ko liggéeyal depuis ba mu fi toogee ak léegi waaye ñi nga xam ne nag dañuy jàmmaarloog ñun di defante ak ñun bu fekkee ñooñu la ñu jël tey di ñu ko jënde ñu ne dañuy taxaw tey wane suñu bopp wane suñu mer te fas yéene itam te fas yéene itam incha allahu rabbi fii ak quatre jours président Macky Sall bu fekkee lii saafarawu ko ñun danañ jël suñu ay matuwaay jàkkaarloo ak suñuy ndaw wax ak jigéen ñi ndax ñu ñoo mën a wax nit ñi jigéen ñi ñu dégg am ñu jot am nañ temps gëm nañ liñ nekk te itam ku ñu wax danga ñu déglu ku ñu waxee danga ñu dégg ndax xam nañ li ñuy wax te xam nañ fi ñuy jaar danañ wax ak ñi nga xam ne ñoom lañ war a waxal am nañ ay matuwaay ndax ku kenn ku nekk yaa ngeeg sa carte d'identité yaa ngeeg falu jigéen ñee la fal léegi nag président bu saafarawul li nga xam ne mooy li ñu metti danañ jóg ak suñuy matuwaay te yaakaar naa ne incha allah bu ñu demee ci élection yi président dina gën a gis beneen résultat boo xam ne mooy gën a metti bi fi doon jaar